يا همة سيفي أهدر لنا قلب يا كما أدري والتعاطفي بنسبة تتنفس نيجي بنتو ونبي كسوف الكلام وقف الاسم جتر والأعظم وقنا ما قلو تخ موي تروتوي nanga xamante ni xàq bam taxawee di xàq wujjóot beeg moo jóot beeg moo jóodaat ismuwaa na nga taxawee mu am nag tur tur tur ñu ne ismu nubuwaat ismu wilaayaat yooyu yëpp ak ismu atbaq ñongo nag foofu lañ génn si kon a saasija bi moo dem ba génn taxaw feeñ ñu ne ko martabawoo allahu mooy ah ñu def ko rek ismu laayu ba laahu ismum ba dénk kon nag pour waxti moom laa tasidoo du ko dolli al ibaaratu du ko tekki illaa ko moo dal lu may gën ko suulaat soo ko bëggoon tekki tekki boo tekki dañ koy sàngaat xamuñ bu mu demee fa hijaabuhu kiiraayam laa duñ ko xotti kenn ko xotti te wallaahi dëgg na mënoo ko xotti mukk mukk mukk xam nii la man nga dem nag ci sa yëg-yëg di yëgee ne nii la waaye nag nga xam ne nii la déedéet loo tax mu ta jóg ca la muy fangaaral fangaaral mosut ci xëy bëgg ah kon nag loo tax nag loo xam ne moom ma nga ne fang nga bëgg weer te buñ ci xëy nooy boolante ñaar yi pour mën koo nit ba ut te bi xul mu wax te tam bi suurati wa yaa ajaban baatin woo saahib ah te nag luñ mënta bañ wax nag laa budda wala budda min al kalaam fii soo ko bëgg a weer mënoo koo weer te mënuñ caa wax nag kon nag bàyyi nooy def mu ne fa aqulu maa ngi lay wax ne alhamdu hamdu lillahi ñeel na laa àll si nga xam amada moo tëb tëb fu ko waxee du kaay ma may la loolu mooy tëb kan la al ahmadiyata lu mu bil ahadiyata ahadiyatu loo jël tëbbee ko ahmadiyat am taxaw di jëmmi aad ahmadiya di jëmmi aadiya ndax wax ju am solo ju fort fekk na mën ngaa dégg kon nag ka joxe ka ba muy jox ka muy jox ka te la mu am mooy aadiya mu jox ko ahmadiya moom moom maa ngi xam du kookaa ko moom kon gis nga fii nga commencé li ngay dégg ne amariya dañ koo nëbb ci biir xaqaaya ku teel fi hadra xaq dañ ko nëbb ndax nit ñëpp dañoo foogoon ne muhammadiya moo njëkk jot mm-hmm. waaye buñ demee ci xaq ya xaqaayiq yi ci ësalaat ya mm-hmm. amariya moo njëkk jot mm-hmm. buñ demee ci abadaat ya muhammad moo njëkk a jot nii la taxawee lee tax mu am ñaari version bii ci xaqaayiqi moo gën a mat ci xaqaayiqi ndax dama xaqatu xaqaayiqi ñu ne ko ahadiya ahmadiya bañ dikkee moo gën a ëpp ak cat ci biñ dikkee ki nga xamante ni mooy abadaan moo tax fii la nekkee ne muhammadu wala nabiyu wala muhammadu rasulu kon nag muhammadiya bi biñ dikkee fii muhammadiya mooy mujj ahmadiya fii kon nag moo def moo def tax tilka dawaa'iru dawraa fii ahmadi min ahmadi min ahmadi ko fii nga xam ne fi tëbbee aadiya ahmadiya mooy min ahmadin bi mu dikkee muhammadiya tamit ahmad yi dikkaat ahmad dikkaat ci kanam mu dee saar nag ci beneen ahmad moo tax moom nag ma nga xam ne moo yore lame wa ca kaw mu ne man xuus naa jëlal kay bi fi bari séri yi wala ëkk waani laa wala mu tawaani ya mooy ba mu nekkee xuus sa saat bi nga xam ne mooy saatu ëgër yi bi kër bi falaa xuus te awma lu ma yéexante ma jaar ci ahad yi ahmad yi dem ba ci Muhammad ya waay dee ila araatul qutba ahmada ahmad bii ahmad ab ba ahmad ba ba mu dikkee dafa bàyyi ko ci ahmad ba nekkoon ca azali azal ba dikki jaar ci bi nga xam moo nekk ci azali azal azali azali azal bi doo ko dikki fekkaat ko fi ci ah, ci azali azal ci abadi abad foofu la ko fekk bàyyi bi doon wax borom laa mi yoo xam ne jaar naa fa mu doo ko wàcc nag ci ëppali ëppali ëppali ëppali doo ko wàcc est-ce que ngay dégg li ma wax nii la kon nag maa ngay sant ki nga moo jël ahad may ko ahmad yëga wal muhammad yëga mu may ko mm-hmm. bil waahidiyati waahidiyati ga xam nga nit ñi li tax Moussa Kara doy waar mm-hmm. da ngay foog ne Amady ya dafa nekk fële Mouhamad yi nekk fële mm-hmm. mayekat bi kenn la ka ñuy may bi kenn la mm-hmm. ñu tudde ko ijaar ak imdaat mayekat mooy ijaar ka may ka mooy imdaat kon xamal ne ka mayekat moo jël aadiyatoom may ko Mouhamad jël waaye diyaam jox ko Mouhamad lii nag moo taxaw nag di jëmi malaaka yi nga xam ne ñoo jur ci nabi bi ñii malaaka ya xamante ni inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi kon nag ñooñu dey bañ dikkee ñoom ñoo dëkk taxaw di jëmi sallallahu alayhi wa sallam nga kële ba nga koy wax moom ma mayee nga sant ko te mayam nga ni alhamdulilah kañ may bañ ko mayee nga dikk ne wa salaatu wa te ñu salaatu wa salaam na léegi ala sayyidina muhammadin ndax kooku mooy salaatu wa salaam léegi na salaatu wa salaam te ne salaatu mooy may salaam mooy garanti mooy liñ jàngoon démb dafa mel ne boo ko jàngee ca jaayirmaan ba daf lay dimbale fii ndaxte salaatu mooy kañ may ta may ñu ut rek fële ñu ne ko tëbb nañ ko fii ñu ne def nañ salaatu su moom kon salaatu mooy inda ba ñu nekk ci bi nga xamante ni moo jëmi nabi bi bañ mm-hmm. ko jox moom wa salaatu wa salaam ala ñu ne ko ah salaatu ak salaam mooy kan mm-hmm. man mooy koo xamante ni mm-hmm. amada moo tëb mm-hmm. alkadniyata lan la ko tëbbee bil ahmadiyati mu jël ahmadiyati ka duy ko ci kadniyati te xoolal boo xoolee li Amady kon dikkaat na Amady dikkaat na ndaxte moom ah il mu dekk ca ëtt ba ne jël fa maya ba mu jëlee maya mu dikk ca ëtt bii joxe maya ndaxte kare dañ ko tëbb kii nag salaatu wasalaam moo jël Amady ya ga tëbbee ko kat yi fa ñuy nëbboo wal xarmiyata mu tëbee xan bil muhammadiyati mu jël muhammadiyati tëjee euh, tëbee ko xarmiyati léegi nag kon nag xarmiya xarmiya xarmiya ah ci ci Ahmadu Rasul bi ah xarmiya hmm. ci Ahmadu Rasul bi eh, bàyyi booy bàyyi bàyyi moom ma dugal ci Ahmad loolu bu nekkee rek bàyyi boobu dégg nga xam nga daay man damaa bëgg fi ñu nekk da wax bi ci wax ba mu jeex ñu doo ko génne loolu <laughs> yaa xamal sa xalaat moom du war sama sa xalaat man sama xalaat mënut a fit lii sa xalaat mënut a fit lii ah dégg nga dégg nga dégg nga xam nga boo seetee boo demee ci xaqaayik fa ngay gis ni Ahmad ya kum jox kat nit mooy kat nit booba kat nit mooy kat mooy ka ca kanam <laughs> ngay dem de boo jëlee fii rek da ngay daw ci fële nga xamante ne fa ñuy fa ñuy fële may nga fa ngay génnee ji ngay seeti kon nag xam ni kuñ ko jox Muhammad te ma kan mooy xam ni mooy am mooy Ahmad bi mooy xam moom fan la jëlee xam bi Muhammad moo ko koy daanaka foofu la fëkk moo tax ñu fekk Muhammad ci moo tax kon Ahmad yi ci biir xam ni ci biir xar mi ci biir lay nekk xar mi ci biti ah foofu laa bëgg nga taxaw di xool bul jàgg fi nga xam ne fi la kii bi tool dégg nga kon kële am na ñeent muy ahmadiya ak ahadiya muy waayidiya ak muhammadiya taxaw di jëmmi salaatu wasalaam mu dikk na ba nekk jëmmi salaatu wasalaam am na moom itam bagaas mu jël ahmadiya def ko xatmiyat yi jël muhammadiya jox ko xatmiyat yi ndax te ñaar dafay nekk suuf te ñaar kenn lañu doon jëmm ja taxaw moo nekk di jëmm bi kon nag ahmadiya daal taxaw ridwaanu laay gis nga ko moo tax ngërmaane moom gis nga këre taxawee salaatu wa salaam moo fay daw kii bi mu taxawee ridwaan moo fay génn si seetal wa ridwaanu ngërëm xaala sayidina yal nekk sayidina nga xam rek ahmadu siddiq mooy ahmad siddiq al akbar ahmad siddiq maanaam mooy siddiqul akbar mooy bële nga xam ne moo nekkoon ca biir kañ ma yoon ahmad yamba karniya xat yaam ba Muhammad yooyu mooy xat yaam kooku mooy siddiqul akbar ndaxte moo jël kaat yëpp yor yëpp mu ñeentoo leen jëmoo leen de benn jëmi euh, ridwaan kon nag moom it moo yore bagaas yi léegi moo tax moom ridwaan nañ ko ñaanal kër ñu ne ko salaatu wa salaam euh, ci sur al afar au sur afar mooy sur bi nga xam moo not lu tax ñu tegu sur afar mooy sirul asraar yi kenn ku ne moo di këpp noot la sàngale lam lay sàngee dem yoonu war ama ci amul kum mu mu dal ñu ne ko waaw kooku mooy kan bàyyi mu ne man mooy koo xam ne amada moo tëbb mooy may kan alxutbaaniyata bilkat niyati ji nga kenn ku ne lañ la may ngay maye ji moom moo jël kan yi boo jëlee boo jëlee boo gisee ki njëkk rek mooy kiñ may ki kan yetu mooy ki lañ maye la moo jël kan yetu ba may ko kurbaan yetu mu jël kan yetu ba may ko fardaan ndaxte aara moo taxaw de kenn kurbaan yetu mooy waxdatu bi moom lañ nam ne kew bennam nga na la di may aadama bennam nga mu nekk moo tax ñu teg ko fardaaniya moo tax nag ba ñu nekkee xutbaaniya ak fardaaniya bañ nekkee fa la ñu nekk waahidiya ak wahdatu ca biir kon nag mu taxaw fii ah léegi ah li nga doon wax ngay déglu baax fii léegi ki taxaw ci place yaa ci benn yaa ci ñaar yaa ci ñett du fa nga foofa taw léegi nag ñete jëm fa nga xamante ni fa la wuy way réeree mooy ka bokk ceef yi te ñu ko tey limaale ci xutbaanetu bil kat miti wal faal bil at mm-hmm. ñu ne ko xalifa bi wa ridwaanu ridwaan alal xalifa si gis nga ko de yàlla nekk ca xalif ba waaye fii du xalifaab suhur xalifaab bu ton ba la a sayidi al abdi moom sayidu la abdullah mooy kan man mooy ko xam ne amada moo tëbb xaybal makk noonaati xëytul fa nga xam ne fa lañ denc am am ya lu mu ko defee bil qutbaaniyati moo tax qutbaaniyati bii ah da war a xam ne dañ koo jël maye ko kuñ ko may xaybul maktuum kuñ maye nag ba ma di fees dégg est-ce que dégg nga foo gisee këmuti ko rek ka njël ka euh, signal bi jubale ko kaybul mbëkk noonu moom lañ may moom lañ may qurbaan it kon qurbaan it alalu jàppoo moomul boppam bay wax ne maay moom kay ko moom ko moo mën a wax ne maay waaye moo tax suñu ku fi taxaw woote rek yaa ngi yàq qurbaan yi kuy koy kuy kuy kaybul mbëkk noonu ndaxte kaybul mbëkk noonu mooy martaba nga xam ne mooy martaba nga xamante ni mooy ah fardaaniye bi moom la fardaani mooy xëy bu maknun kon nag bi mu dikkee fële kenn ku ne sa saatu ak sa martaba lañ boolante saatu martaba saatu martaba saatu mu nekk par deux par deux xëy bu maknun nii bil qurbanati wa sahaadata bi téem mais njëkkee ci xaalamu suur bi nag lan la ko may bil fardaaniti benn ga moo tax aadama ba mu dikkee ci maqaama suur bi rek benn la benn la ci wàcc si kon nag dañ jël benn ga may ko saxaadaam bi moo tax fii nag bu ñu fi taxawee fa wallaahi laa turfa li ahmada kon kanoon dox ci biir risaala bi nga xam ne mooy risaala rasul xaq bi ak rasul laay bi kan la kenn rek la lii moo naqadi ràññi nag moo tax rasul xaq bi nag nga xam ne kenn mënu ko ràññi ak rasul laay bi kenn ko ràññi rek mu ne ko kutunte fi hadratil xaq ndax yaa nga dalee ca bañ commencé ci jël ahmad aadiya tëbb ko ahmadiya foofu nga commencé dox da doxa doxa dox ba dëkk ci fardaaniya wa qad jita fardan duna saklin ci loolu ko yow nit nga fardan ngay kenn koo xamante ni kenn amuloo ko toloo yow xaalika salaati xaq bi xaq wax daa ala takum batra ya. tax na ah xëy bu bi nga xam ne mooy xëybul xuyóob salaamun ala ay ala xëybul aynul xuyóob bi daañu ko tuddee fan ndaxte bañ nekk si xuyóob mooy seen ay hmm? kon ñu tuddee ko fële mooy koo xamante ni makk noonu la bi maanaam masoon la kon ak xëybul makk noonu xëy boo ko xamante ne kële dañ koo ñoŋal kenn du ko laal mooy xëy bu musoon bi xëy bul mbokku noonu mooy ki xam ne mi ngi nii ne fàng ndax fi lañ denc lépp kenn du ko laal moom xëy bu la ci xëy bu rek moo tax nag <clears throat> moom nag kap fàddu kooka mooy koo xamante ne mooy makku noonu boo ko déggee mooy kañ nëbb fañ nëbbee waaju nëbbu jë waaju dëbb ji rek ñun waxuñ ci moom dara ndax ñëwuñu wax ci moom dara waaye nëbbookaay bi xam ne boo xamee xam ko ba nëbbu moom lañ lay wax moo tax nag ñu koy léeg ci ay léeg dul jeex <laughs> ah moo tax boo demee ñu ne ko saato wala kansiya wala azal yuy deme na ko yooyu yëpp bañ dikkee fa la ñu naan ay abada ay ma xamul yooyu yëpp kenn ka moo nekk ci kenn ka rek ñu ne ko xutinta ba mu nekk ci butoon laakin tajalayta bindikati fardaani bi lil akwaani aj ma yéexa kon nag kenn fi nekk ci biti ñu ne ko waaw saxaadatu moom nga jox fardaane moom nga defee sawa saay euh, ñu ne ko waaw kooku mooy kan boobaa yow boo ki nga xam ne mooy fardaane bi nekk ci kii jano mooy kan mu ne kooko ak daa iratu ihaat daa iratu ihaat ëtt bi nga xam moo feeg lépp alhaa itati kooko mooy daa iratu ihaat nga ne wala ne xet dëkk loolu wal aasamiyatu wala aasamiya bi maanaa ngandeekaay ba fa ñuy ngandee xam nga lu tax ñu teel fa ngay ngandee xanaa xamuloo ne ruuxu ni mu tuutee ak ñoom xel ak ñoom xel lañ tuutee woon ñu ci ngand mi fii lañ ngandee si ci faddaane bi kon boo ko seetee kon nga ne ko asamitu ah ñaari tur boo man moom su oon groupé su oon yi fañ ko rose problème yàlla yëpp fañ ko groupé mooy waajur xam nga gars yi mu xam tur yu moom mii ma am tur leen tur tur tur saada ah, saada daal di yaatu si ah, asamiya man wal ismu al asam al akbar ismul asam al wax akbar yëpp foo ko dégg rek ngand lay nekk xam nga wax kal koo xel xasamatu ñoom kalal ci xasamatu ñu ne ak lépp waaye foo ko déggee saa yi dañoo tuddee ngand mi ah kon mooy ismul asam al akbar al maksuun wañ denc ko asam al akbar al maksuun yëpp ay naatam la mooy ismul asam la akbar ya maksuun ba tey sirul muso masoon bi sirul musoon waa ji moom ko moo tax gis nga Ibou Diouf xal bu mosoon nañ ba kaabal mi bàyyi mbab la bokkul ak sirul mosoon na kii man ko prise sirul mosoon moom kii wal këncil azam magasin bi gën a rëy ci magasin yi ndax ay magasin ñoo dee ci biir magasin man nañ ko tuddee wa sirul mu talsan siru buñ fekk buñ la mës ba kenn xamul mooy kii ku kenn xamul kii mooy kii muntaha xawaatul akabiri dernier yemuwaayu xaatiru akabiri ba ñuy demee ba seen xaati dikk fii xaas dañoo rees dañoo dañoo dañoo raas foire amatul bu bi xam nga bouchon bu foiree vis bu foiree borom bi day daw ci biiram du taxaw mooy fii bu ñu fi dikkee seen xaalis dañu ko moom waa ji def de wa maatu nasari basair awaili wal awaqib fii mooy garas gisee kaay ñu dëkk ñaar wu mujjee fii mooy seen garas bañuy xool a xool da war a wër ba dikk fii ak seen garas boobu nga ne ma almadrubi alayhi alayhi ka jël kiiraay la na ko këluf ci koom xam nga kiiraay la mooy kat mi mooy kat mi kat mi kat makk noonu mooy kii def ci biir kiiraay li kii nag mooy waajur yi ah almadro ali ali jaab li kaw nii ñu ne ko waaw lu bàyyi ndax dafa nekk layit loowu li man yellu nit ñi ku koy sàkku aw yan mo fi wala ko xamne ya ko ya ngay mané mom lay wul wala mu laa moom la xibal sa ta xalaat ko fala falaa yan maa ali fala yu tale ko li ali ci illa afrad akta lu moy kut bi nga xamna dañ ci fardaniya te kat lañu ñuy ñom do dooga ñoo xam ne ca biir ndaxte mooy seen way ah waaye ku nekk sa de xam ne sa biir te kat ba ñu nekk sa biir kenn fa nekk de waaye dañ jënd waaye de kon nag am naa tam moomal wilaaya ak ñoo xam ñoom mooy lan ku dem ba fànnaaw fa fànnaaw rek aw xusuusil maxsuusin wala ñeñ jagle ci biir jagle ga ne na aarifina ca aarifina waaye fu ñu jëlee nag loolu moom bil im min xuwaar madadi doole tëbb ja moo leen tëbb bañ jox leen doole wa ayet naa bi ruur xuddusi bi defoon instant moom lañ daalalee xaarif ni yooyu bañ mën a janoog li nga xamante ni mooy këñ këñ ukte bi kii lay ah ñépp nag ba ndikkee kenn ku ne nañ fekkee gan nga gan gu ñëw nam lay feeñu ko bokk na gan woon fekk gan gan boo na ko fekkee moom moom koo xool mm-hmm. waa jooja man xaw ma ñuy def yàlla nañ ko yàlla man bañ dem ba bokk ci ko ah nii nag doole doole tëb yi mm-hmm. noonu lañ fa duggee mm-hmm. xam nga booy dem avion dafa am première classe ak deuxième ak waa xamante ni mooy léegi nag kenn ku ne doole jëm fa dikkee bokk gisee wari saa rek la fa dafa utee fii coom xibaaraatu ahlil aswaaqi fi de eh, eh, tekkikaayu nda ko mos ka wax nañ ko mosee bokk ah moo fa minum am na ci man koo xam ne xaaral ana asmaa ahu turi laahu yi taala kula asamu ñu ne amul tur ñoom ñoom ñoom ñu àgg ca mos amul turu nekkul ismul ahsan wala ijaabatu nangu ga bi xalil kóotil ixlaas mi ngi ci kam doole na nga setalee kenn ku ne sa setal ci nga jot kon nag nii la gaa yi lu ko koo xam ne sa setal agara ci dëgërëm cinq ak dem ci dix ak dem ci pexe mm-hmm. kenn ku ne ba nga dikkee door rek bi xadiriment ci boo tinaa lu am daanu ko rek mm-hmm. sa mbëggeel kanam toll rek mm-hmm. nga jose noonu firee ah, li ma waxal ne man man Ibrahima yéesiw dana mën a wér min wa ci ci anam ramas naa boo xam ne joxañu ijjënsoom ci maa taqadama li ma wax nag façon boo xam ne joxoñaloon naa ko ci la paase mooy lan waxaadati nasli anisa bi jawhari yi wala sa yoxmalu ilaa fi yaday batan waxoon naa la ko waxaadati nas lii aada yi jaas jaas nas lu mooy fépp jaas anisa ñu xew xa bi jawhari yi ca mbat ma jaas buñ ko roofee ca mbat ma xam nga ñoo ko du feeñati da nga ko xem ne ah jaas yëpp ñëw dara waaye ak lu mu ñaw ñëw wala si yow mënul kenn du ko jëfandikoo ilaa fii day bat lu may loxo jàmbaar xam nga bàqaar ku ragal bu téye jaas yi suñu ko këf mu sànni jaas yi kon jaas yi kooku du xam du ñu xam ñëw ko jaas moo tax tur yàlla ku xam ne amuloo melokaanu mën a téye jaam eh, tërwa te nañ ko laajee da ngay sikkër sikkër sikkër sikkër sikkër sikkër weer ñaar weer ni teur at ah, do ci jere dara nga gis ko xal bu dikki na ah rek mu dak ko nag wala ay ni jaasu jaas ci lawal jambar waye dañ degg na ko nak bu nek ci lol ko xamne du jambar da yak waye limu bëgg a ci ismul asam bi damaa bëgg ngeen xool ka nga xam ne muy tëddkat bi kenn ñu dem ci <coughs> aadiya ak ahmadiya ak waay ak mahamadiya muy muy numéro ba njëkk jox ñu dem ci ahmadiya xatmiya ak mahamadiya xatmiya muy numéro Hmm? ñu dikkaat ci xutbaaniya mooy xadmiyatu xadmiya ak xadmiyatu fardaaniya ñu dikk nag kon dama contrôle bële buñ ka doon joxe mooy un ka ca tegee mooy deux ka ca tegee mooy trois ka ca tegee mooy quatre ka ca tegee mooy cinq ñi ñi lee fi mooy fardaani bi ci lañu ci kon juróom seetal trois yuy taxaw lañ fii lii nag mooy taxawaayu waxdatu bi <coughs> noonu la tur yi tur yi ay xaraf xam nga indil naa la fi juróom kenn ko joxe ñeent ña mu joxante kenn kooka nag kenn dong la kooka nag mooy jëmmi turoo jëmmi turoo nag moom lañ mën gis ndax fa mu départ ba fa mu teew si dégg-dégg nga ci am rek naan nii am na li may nañ ci ci jël na ci jël na jox kii jël na jox kii ndax gis nga ki kii jël na tëkk joxante kooku nag moo tax ñu ne lu ñu ko bëgg a bëgg a firi firi ma def koy gën a yokk lëndëm rek ah ndax firi nañ ba jeexal jamono yoo xam ana waa ji ah, ah? <laughs> fekkal waa jaa ngi nii taxaw lii ne na cëpp léegi nag ah ñu wan ñu ko misaal ci aadama nag taxaw na mm-hmm. di xëy bul makk noonu di ah fardul li wax fardul jaanee mm-hmm. fardul jaanee bi dama xam nga ooyee ni ko wàññi mm-hmm. ah kon nag gis nga fi dikkee ah li nga ko tudd dafa bëri trop ah ndax tudd nañ ko ci xaalamu saada bi tudd nañ fa qurbaaniya tudd fa fardaaniya tudd nañ daal di xaar def ahsan ya def nañ mawtu def ismul ahsan al akbar al masoon def sirul masoon def kantul ahsam def sirul multalsam def muntaha xawaatir akabiri def ko mahat nasairi basairi awaili wal awaqiri al madruba anu al ali anujibu ah, almadrubu ah, alayhi anujibu mhm. lëkkal ne laay soowu li man ba fukki kiiraay ak ñaar mhm. bi mu fii mhm. lañ ko ëmbi xoolal nag léegi fukki kiiraay ak ñaar léegi ah, bi mu fii benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk hmm? ah, benn ñaar fukk ak ñaar yi moom la kii jël sàngoo ko moom mii kon fukk ak ñaar yi yépp moom mii bi ndikkee la daw seen biir làmboo leen moom mii moo làmb fukk ak ñaar ah taxaw nag juddi ah, si bisa fukk ak ñaar ah, du gàmm bisa fukk ak ñaar la mooy waa ji nga xam ne moom lañu gàmmoon nag moo tax kii ñuy gàmmoon ki ba tey kenn mënu ko wax kenn ko mën a gàmmoon yaa xam ne moom la gari si moom rek <laughs> ah, ka dalal gan bi gi rek moo ko mën a gàmmoon moo tax bu njëriñ gàmmoon ci moom walaayitum gàmmu du baax te waxal naa la gàmmoo ni koy ko defee dañuy rey nag yi mm-hmm. ah gàmmo gàmmo mm-hmm. nag yi gàmmo yi nag baax na nañ ko jàngoon waaye kenn ku ne wuyu yooyu jëndul bàqara mm-hmm. fi jinsil basar am na nag boo xam ne mi ngi ci gàmmukat yi ñi ñëw di gàmmu si ngelawaay boo dikkee rayal si nag gàmmu woowu ñi nag am ngëm ndaxte gàmmoo mooy gëmoo soo fi nag wi doo am gëmu xaay ndax tànk nite gi dem na nag wi taxaw fi doo xam imaan moo tax ne kii nga xamante ni moo dalal gan gi moo xam nag fu ñuy jaar ba dellu si ngam gan gi ñu daal di indil ko gëlëm yi indil ko ah, nag yi xam naa xar yi sax xam na ci biir kër yi waaye ñun lañ gis ñu xew ca nag mbedd ya mooy nag yaa gëlëm ya ah, xar yi sax gis ñu xewoon ak bëy <laughs> ah ak ganaar leen fa xam naa waam ñàkk duñ fa ñàkk la waaye dañ leen dañ leen dox si suuf waaye daal gàmmoo daal da ngay dikk rey nag boobu nga xamante ne moo yàqal ñëpp seen liggéey yàlla nañu yàlla may digg ak topp kon nag benn waaye moo ko moo ko ca guttoon ba mu dikkee ci si wërit moo daw ci biti rek uh-huh. wan leen mooy kan uh-huh. ca amul ndaxte la xam mooy bañ dikkee ci biti noonu lañ nekkee rek mm-hmm. ah ba mu nekkee ci xaqaayiku lu boo am ñeent dafa nekk ba mu dikkee ci xaqaayiku wilaayam ñeent dafa nekk mm-hmm. bi mu dikkee ci xaqaayiku xilaafam mm-hmm. ñeent bi nekk ci kon ñaar du fukk ak juddoo ci biir noonu la juddoo ci biti kon nag soo boolee fukk ak ñaar ak fukk ñaar mooy yan vingt quatre insa ca lu mu juddu kuy insa nag laa bëgg a xam man <laughs> waaw insa nag mooy kat kan mooy vingt quatre xaw ma de mooy waa ji nga xamante ni mooy boroom waa ji nga xamante ni mooy ki xamante ni moom dañ ko kër fël mm-hmm. ah, kiiraay la mm-hmm. kenn xamu ko mm-hmm. ñeroon ndox ma njëkk ak ñooy wuj yëpp moo tax ibu jub ne ko kuréel bu njëkk ba ba ca topp moom la ut ñun la yàlla jagleel min ka ah waxuma moom la de waaye nag da ngay xool waxuma moom la moom ndax moom moom du ko kooku moom mooy beneen waay ba nekk ci moom la wax ne wa sama war bi ma leen di waxal lii am lu nekk ca gannaaw xel nag loolu xel moo koy xalaat kenn ku nekk bu ko kenn laaj ndax jëm ci xelam de dama laa wax de maalaw sakartu yëreeku diima i waaw loola nga bëgg ma koo laaj man nii tey te xaw ma ca dara nga bëgg ma suus aw fenn waxal la ko xaw ma ca dara xaw ma ca ah léegi nag ah woy wa daanu na wa tara da gis aljibaala doj ya wala aljabalu aljabala mm-hmm. waaye kenn koo xamante ni jamono ataa fi mu fët xam nga jëbal mooy li dox li doon dox ba dikk de tekk mooy xàqaay ki yi doon def joxante léegi ba dikk ne hëng tey dematut fenn mu wax nga ci maqaamam al aana daa im yow yaa ngay xool nga jot leen jaami datan ña nga woy ne kekk woyee te fekk doj yaa samur mi nga doon bara saadu comme na niir yi niiru ngelaw ji te na muy demee yow yaa ngi foog ne yëpp a ngi fi nekk te amul fi nekk ñaata ah, doj yëpp xamuñ fi xamuñ fi kon nag ki li fi am ki mooy ki fi am ki waaye doj xamuñ fi xam nga yaa ngi xool yaa ngi xool dañuy de ñu ne xaqiqatu nangam xaqiqatu nangam xaqiqatu nangam. xàq nangam martaba nangam yooyu yëpp yaa ko fi gis waaye amuñ ci moom nga jur moom moom la juróom yaa ngi yokk fa nga fi ba nga dikkee di tarbiya ñu ne dama seetal muhammadiya nga fa ne ah du toll nag ma xam ne moom boole yow naa ko fekk nga dikk yaa sam xel de nga ne mi ngi fi waa mi mooy nangam dama seet amal yi nga dikk di aw ah, ne ah mooy doj nangam ah yow yaa xamul ki xam nga doj mooy kan mooy xaalamul asbaab bu ñu fi taxawee nga dem ci Muhammad nga dem xam nga yow yaa ngi gis nit nguñ taxaw nga demal doj la ñu ne demal seeti Ahmad nga dikk ne gis naa Ahmad Ahmad ñu ne kan mooy Ahmad Tidiane déedéet nga dikk ci xilaafa bi ne gis naa ko doja ngi doju ngor bi bokk doju ngor natt moo doju ngor doju gore bi doju gore bi xam nga du doju ngor ah. boo dikkee nga foog ne ñu ngi fi fekk nekkuñ fi ka fa nekk ka lañ nag koo ko nekk fa xamuñ ko nag moom mooy turu nga xamante ni dañ ko kër fël waa njëkk xamuñ ko waa mujj xamuñ ko xamuñ nu mu tuddee koox bu ma kenn damaa bëgg ngeen xalaat nag li ma la wax rek moo nag xam nga dañ yaa ngi ñu ngi gis moom mu fi waaye aljibaala fanamaan sa jaar ba lil jébari aljabalu soo ko defoon isaab allahu alif la ak lam lam ak xaar boo jëlee alif ak xaar lu mu la jox six boo jëlee laam laam bu ne trente lu mu la jox mooy soixante six aljabalu ñaari laam lañ ñaari laam boo ko bonoon te soixante nga jël alifab jim lum lay indil 6 3 4 kon nga jël ba ca mu indil 6 kon nak allah do nga fi dess waye nak debal mom gisuko fi ana dañu musa wax wala ma ta yalla da ben jara <laughs> jaara motax debal bi bu ko xol debal bi moy li nga xol ñu ne ki na jëm ne doom ndangam kilima gi moo tax laa dara xum tanaafara fil baari boo demee fa def gis ko mooy aljibaalu rasiyaat yi mm-hmm. la yóbbu de mm-hmm. ah am na koo xam bu ne tëll mm-hmm. ah ca fale moo tax wa tiini wa saytuuni wa tóori siniina wa haadal baladi amin ñett yooyu ñu gëj boo demee wële fala Moussa doon diwee benn bële ca la Insa juddoo benn bële mooy yële ca Makka boo demee ba xam firi ma dëkk dëgg mooy seen bantu pare wax asar bële ak dëkk bii dëkk bii dëkk baladul amin dëkk bu ñu garanti yàlla gi na wa tiini wa saytooni wa kon na seetal kon day mel na garabu tiin ci lay giñ ak saytoon wattore sino ha gappana kono ko wasal mbaɗe wattini wo sey toon wattore daga wa daga wattore wo aha wattini amin ah, kon day men na kaddafe gen ci place yooyu waaye xam nga ne place yooyu lu ci yàlla am soxla ci kii waaye ña feeñee place place yooyu ñi koy feeñee gi ñu mucc la fa jaar te jëm fu mu jëm ca kooka laa ñu ba tollooxee waaye nag ba mu demee ba ci amin nag mu génn fa Cameroun te génn ci amin laa bëggoon wax waaye moo koy waxee nag ah, ah, ah, kenn laaj wax naa la tontu naa la laaj leen ma <laughs> boo kenn laaj <laughs> de dégg de <clears throat> kon nag wa minhum am na ci ñamos man xaaral fa xam ne ana isman ak sam allahu mooy la hmm. ah ñu day mos nañ ko ci wa minhum man ko xam ne qaala inna innahu alxayu alqayum hmm. moom ah ndaxte xayul qayum moo boole ci ki nga xam ne moo boole ruuxu ak yaram hmm. kooku ñu ne mooy xayul qayum ah mos na waaye la mos leeru ko wa minhum am na man koo xam ne qaala na huwa mooy huwa sawaay yaa huwa yaa huwa ba kat ñoom ñooñu kat kenn ku ci nekk fa nga dikkee mooy ca buntu de te boo ca xoote duwuy la yaa allah yaa allah ñoom fa lañ nekk rek ñam ba njëkk ne yaa yaa qayuum nekk ci dikk na ko yaa huwa ay huwa ay moom ay moom wa min man qaala yaa sol jala sol jalaali wal ikraam ndaxte kat ah ña dem ca laxu foor nañ ci fardaaniya ña ñëw ci huwa dikk nañ ci fardaaniya ndax un un lañ fi indi waaye yu xëyam deux sol jalaali wal ikraam numéro deux la léegi nag am na ko oo ci numéro un sax xamul ne lay oo am na ko euh, ci numéro di te xam numéro di lay woo yëpp ndaxte kiraay yi day jagoroon ndax confiance fi tiit na tey ñun bu ñu woowee xam nañu xam nañ fi un de un xam nañ fi deux deux wa man qaala rabbi rabbi ndaxte dafa am rëbbu moom ñaari phase yëpp rëbbu la wa minhum man qaala salaam yaa salaam yaa salaam ndax salaatu wa salaam buñ daje boo doo oo salaam rek oo ah yow rek foofu nga laal moom baax na moom <laughs> boobu baax <laughs> boobu baax na de <laughs> boobu baax na de moom neex na moom dégg de ah gars yi dañu dañuy làmbati rek ah ndax su koy làmbati lañ ko dox ne dëgg ndax kii daay jeexu waroon xaaral ma ne yaa xanaanu yaa ma moo tax xoo koo xamut danga ko xooyee tur woo xam ne du turam moo tax sa turam njëkk wañ leen xooyee xamuloo ne koo xam ne dafa nekk borom dafa am tur fële am tur fii ah léegi boo dikkee nga ne yaa taal wala yaa wat xamuñ kuy taal waat hmm. soo ñu bëgg a ne baaba taal ah nga dikk nag Birane Wade aha Mohamed Gueye Ahmed Gueye ma Ahmed Ahmed bi nag ko waxee moom ndax léeg-léeg ñu ne ko Mohamed Gueye Ahmed wala léeg-léeg ñu ne ko Ahmed Gueye moo tax moom dafa xaw a réer nag mu itam <laughs> ah, ndax da ngaa day ñoo ah, ah, Ahmed Gueye fekk yow daa Mouhamed Gueye nga xam. am nañu ne boo demee. waaw am na ñoo xam ne gis nga boo demoon fekk sa kële. Dame Ndaay. boo demee te ba ma nekkee gone. Dame Ndaay ngay la boo demee dëkk am na dëkk yoo boo demee xam ngeen Dame Ndaay. benn Dame Ndaay rek mu am ci ci foofu Sénégal yëpp benn Dame Ndaay fi am. xam nga lu tax Ndaay. dañ waxoon man damaa mën a euh, gëstu. gis nga nit lu muy demee ci kaw dañ koy réussir booba sama benn mun jaay bu ñu wax àll ndaw yàlla na ko yàlla yërëm moo ma ko tuddee dama ñaawal mu ne man damay fekk xam nga dañu ndaay mooy fii lakk gerte yi lakk gerte yi mu ne nit ñi dañuy dikk nag yéey yéey ba ñuy nekk ci ndaay ba gerte ga jeex man su ma dikkee man naa faa def lu toll naka lañ fa lakkoon mu tuddee ma daam ndaay loolu lañ ma tuddee xam nga mooy gëstukat gi rek mooy tey gi nga fii tey fii nii tey fekk na ñëpp wax ba pare ñu gëttu génn ci loo xamante ni ah ah bu dikkee rek ma jox la loo xol yi yéene te kan ndaay yi feeñ na ba may tarbiya yëpp moo tax gis nga gars yi turi gars yëpp doo nekk turi yoo xamante ni xamal lu tax ñu dugg ko boobu daam ndaay rek am na ku ma oo ma sa oo daa ko koo xam ne dama ko naqari lool yal na ko yàlla baal mu ne ma daam ndaay fekk maa ngi fii si kër mu ne waa man mu ne ma yaa mën a nangam ma ne ko waa góor jërëjëf nga dëgg de ba na ma ko baal xam naa xam naa ko pare te xam naa xam naa sëriñam moo tax mu mene ma moo tax sëriñam du ma saaga moom ndax sëriñam ñi moo ma saaga waaye moom ñu mene ma saaga foog ne xaw ma ko te baal naa ko waaw ndax dafa saaga fu mu xamul ndax daam ndaay man du ma daam ndaay daam ndaay la saaga ana daam ndaay <laughs> wax suñu mukk yow boo bëggoon saaga ne daam géy daam géy ana daam géy <laughs> dara ñi nga lii ma leen jàngal ni jàngee pour fànnaawu doo amati nag xam kon nag ilaa saalika jëm ci ay tekki wal ibaratu muxtalifatun hmm. waaye wal maanaa waaye duñ la mm-hmm. def firiya firiya bëri nañ de waaye benn maana rek man gis nga de mm-hmm. maanaa ba mm-hmm. mooy siru siru loo coow coow siru moo tax ñu ne xaaxoo xadra siri ak ahadiya siru lañ bëgg a waxtaane rek te xamuñ luñ bëgg a waxtaane moom xibaaraat naa sa waaye woo maanaa ko waaye du waaye nag wakkulu ilaa sàkkal xamaali i siru xeebaaraat naa suñ tekki suñ firi sartaa dafa teqaloo ñii ne lii ñii ne waaye na woo ma xanaa ak samaanaay waaye bu boo seetu boo tekkoon boo jëloon laahu soo ko seetee mooy soo seetee yokk mooy sol jalal wal ikram sooy sol jalal wal mooy rabbi rabbi soo booleem te rabbi rabbi mooy salaam ndax salaatu foo ko fekk rek salaam foo ko fekk rek salaatu salaam ci dikk mooy salaatu salaam la boo dikkee xanaa nu mënaanu ba kenn kere ngay bëgg kon nag kenn ku ci ne la dikkee moom noonu la la ca kere waaye nag ñun na ci gaay yi man koo xam ne taalaqa dafa aju bi baat yi xuroo fii ci lenn araf ya al muqattaati yi ko dagg ci awaare yi suróore yi ci njëlbéenu saar yi naka benn ay bi nga xam moom na umaatu xaraf lay waaye umaatu xaraf moom ah yan xaraf nañu nañu indi ndaxte xaraf yi nga xam ne moom lañ bind ci muy alif alif ba ay junj lañ duñ xaraf déedéet xaraf bi tam ñu junjal xaraf wax xaraf yi dafa ci junj benn ba xaraf ba mm-hmm. baa dafa junj baa tax jiim nga dafa jur jiim nga mm-hmm. waaw léegi buñ rombee yow bu dee pays yi ngay pays ñeent yi ngay wax mm-hmm. buñ demee ba ci dël dël moo ñeent mm-hmm. léegi nag buy rombee dël nag ñi dem ci xaar xaar moom ko ko tudde buy rombee xaar dem ci waaw muy juróom-benn waaw léegi nag juróom-benn ko ko tudde buy rombee waaw muy dem ci saay saay mooy kan léegi nag moo tax bu duggee ci foofu da ngay da ngay lam bu dugg foofu foofu do do du doxee kaay ci yàlla de balaa ngay dem da ngay xam ba xam lu ngeen mu xuróof mooy ba nga xamante ni fardaani yaad ya fardaani yaad ya wala fardaani yoon ya ñu nga ne seen fardi yaad ya foofa ngay dale ci balaa ngay dale nag foofa da ngay taxaw ba ñu xaar fardaani ba ñu ci fardaani ya bi nga dem seen awaa ila xaqaayiq ya soo dee foofu boo fa dem demal ba ca sawaatu saati di sawaatu saati nga dem foofu soo dem ba ca saatu nga dem ba ca ësël ba nag nga foog ne fa rek de kaay du foofu bul dalee foofu lim ndaxte ësël am na dalee kaay fa ngay commencé lim mooy fa lim ji amagul waaw boobu boo bëgg a dalee foofu bëgg a indi nag indi ñu xaraf ndax fooy demee <laughs> da nga war a lu bëgg a dee doo bind benn xaraf kon nag dama bëgg ñu bàyyi oote yi ñu xam ne oote dañoo juum ci ñu ñu ootee ah, nañ bàyyi loolu kon nag ah alif laam miim alif laam nangam alif laam ak ah, miim xam nañu ne loolu daal bu ne yaa alif laam miim yaa alif laam miim yi eh, xam naa moo tax bu ñu xoolee foofu dina yàgg ñii ne alif yaa alif miim raa yaa alif miim raa mm-hmm. xam ne yaa miim yaa miim yaa miim xam ne yaa taaha yaa taaha yaa taaha xam ne yaa yaasin yaa yaasin yaa yaasin ñu ne yaa kaaf haa yaa ayin saar xam nga ne gars yi ñuy dikkat fii sonn nañ de ñun ñoo war a ñun ñoo war a sant yàlla li yëpp dañ dikk ñun romb ko fële xam ne ñii dañoo xamu doon rek fa ñuy ootee ak kañu ooka déggul bàyyi ah kon nag nga mën a maa ngi def bari kër ومن من تعلق بالحروف الأهمية أما الحروف الأهمية أهم سقق هله يسم إيه أمي نقر حالك يا أهم يا أهم هله سقق هذا كده إيه ده هكرا فك حرف الأقبال أهم سقق هله يسم أمي نقر حالك يا أهم يا أهم هله سقق هذا كده إيه ده هكرا فك حرف الأقبال أهم سقق هله يسم أمي نقر حالك يا أهم يا أهم هله سقق هذا كده إيه ده هكرا فك حرف الأقبال istaxraja génn nañu ca al moo li ona ña bëgg bi asrar ñi nga xam ne ñoom ko lasrar génn nañ ci fukki araf ak benn maa loo xam ne ñu ne fi ala arbina alf lu mat ñeent fukki junni tarkib kullaha laa yusbihu uxraa kenn ku nekk man ngaa génn génn ci benn tarkib boo xam ne yow ni ma tëggee amun bi kii tëggee amun sax ko nii kii tëggee ko ne rek kii tëgg ba mu dem ah, ba ëpp ah lépp loo xamante ni ëpp na ñeent fukki junni waaye nag sonn nañ lool wala xaqu lii dëgg fi taalik insha allahu jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf yàlla lii dëgg bu soobee yàlla insha allah te kat bàyyi li may wax nii waa pay bi dañ na ko fi ñukk dem ci amoon sax xun xaral si ak asraar yooyu waaye bi déglu àq bi bu nga bëggee nopp laax la yaa insa araw an al isma al ahsam turu ahsam wax waxuma isma ahsam de ismul ahsam waxuma al ismu mooy tura qabla nisbatin njëkk ba ñuy ànd luy nisba xam nga tur boo ne amagul sant wuñ ko mën a àndalee mënoo ko utal dante balaa ngay wax ñu ne baaba ñoo mm-hmm. tudd nga ne baaba mm-hmm. sant nan nga ne taal mm-hmm. booba taal xam am na ni loo ko mën ni suba waaw nag léegi boo dikkante am na turu jiite baaba mooy noo tudd nga noo yaay kan mu ne nit nit ana ban ban nit ban fan nga ko am <laughs> nit ban nis ban nis ba boo ko man a dend ah trop nag mu nga ci ëtt boobale ah kon nak ndax man nga caa wax hmm. ndax man nga caa ñaan hmm. hmm. ah dama leen di dund nisu nisu loolu mooy loo xamante ni tur ak sant mën nañu am ah ah, ah. ah sant nag mooy fan mooy dàkkantelu askan ah. askanu taaleen askanu waddeen askanu ngiyeen askanu jóobeen kan fu mu bokk ñu ne ci nga ci waa Njóobeen la bokk mm-hmm. wala waa Njaay wala waa Caareen mm-hmm. yooyu mën naa am nisba mm-hmm. tur wii nag xam la kulli nisbati tey boo ma bi bi mu dikkee nit na ko noo tudd nit yaay kan mu ne maay baaba baaba nan taal kon ba mu dikkee de baaba taal bi moom moo dikk ànd ak baaba taal ko ba nit ba ba amut moo fi nekk ba nit ba amut moo fi nekk ndax bu fi nekk doon baaba taal bu fi nekk ah kon nag moo dikk wa maaha boo baadaa ak gannaaw nit ba bu hiddi buñ demoon ba ki ñu tuddee baaba gisatuñ ko nit ba nit maa fi des trois fi des ba tey ah ñu ne ko waaw yii lu tax nag ci moom taxawee nii moom lu jiitu nise bi la mu dikk ànd ak nise bi ak gannaaw nise bi nit yépp trois nekk ko lu tax itisaafan dafa meloo na meloo trois du turu tuddee turu meloo la xam nga tuddee naa ko diw ak tuddoo diw moom dafa tuddoo turwa turwa du daf ko meloo de daf ko tuddoo xam nga nit li tax ñu teel ko nit jëfinam yoo tax ñu ne ko lii mooy jëfin fi bàyyi ma li tax ñu teel ko bàyyi jëfi bàyyi ma jëfin waa tax wóos rabi àll jikkoy njaaxal ja kenn ku ne melo ko nag melo yi wam melee bii nag moom dafa dikk melo yooyu turó na mel te melowa duut melo woo xam ne man koo meloo daf ko jëmowee daf ko mel dafa meloo tuwa ittisaafan naka nga xamante ne naa jaaxal la meloo jaaxal la moom dafa dikk ahsaniyatu bi ittisaafan fa sabata daa rafet daa sax loo ñàkk bi sànq xaqiqatan ne tur kon xam naa xaqiqa jum jëlee lii ñu tur xam naa xaqiqa ah ñu seet xaqaayiq yi xoon bam ca noonu woo maanaa ñu ne xam ne maanaa ñu dem ci pays maanaa te buñ ne maanaa mooy bañ dalee ca siru ñu dëkk siru ñu seet ko siru neew da gis de xam ko ndax mën nga faa gis aadiya daal pays wi tay nga dégg gisul dara am na maanaa ñu dëkk see maanaa yaar ya ñu ne nu mu tudd ñu ne siru siru de du tur nag wax dëgg yàlla dafa di liir suga woo soorati am na photo photo ba nun photo nit yi ana nit yi ah ñu de basar yi lañ gis waaye gisuñu si am na photo nag wala bind waaye doo xaraf ya xaraf dañ jox xaraf ya dañ joxoñ si xaraf nag turoo ca boppam xam na ëwalu am na aaxiru xam na sóora am na nafsi mu awalu xaqiqa aaxiroo maana saayiroo sóora baatinoo lafsi kon nag anam ah ba tey jéggi laa cam ñu ne ko waaw bàyyi lu tax mu defee nii mu ne li kamaali sirqi yi ndax mata dëggu nam dëggoo fi saati da saat daf caa dëgg moo tax tasdiq gi fële ba mu nekk ca biir daf caa def taxqiq ba ñu ne ko xaqiq ba mu dikkee ji fii daf ca def tasdiq ba ñu ne ko siddiq fële nag mooy siddiqul akbar fii nag mooy siddiqul asqar mbaa yaa ngi dégg li ma fële ñu ne saatu saa si jabi fële ñu ko saatu aliya bi ah loolu loolu laa la bëgg a wax de ah ah leer laaj yi ah, ah kon nag booba kenn laajaat <laughs> li ko wàllu ah, nga fii ku fi ku ku yàq kuy laaj da ngaa yàkkamti waaye bàyyi de soxna lépp amul lu mu bàyyi waaye nag nit ñi tax na mënuñoo xam ne lii yëpp ah fi saati moom boo ko fekkee ci saati def caa dëgg ko wa na meloom dëggoo def ca dëggoo gis nga siddiq ya saat moo ci njëkk sifa lu ca njëkk saat moom dafa dëkk dafa dikk dëggu ci ah ismu dañuy wax alif ga njëkku ca su mu wóo siin moo ci njëkk moo tax na mu jël dëggu ca mooy siyaada ci cang ka dafa dëgg ci siyaada siyaada <laughs> ak siru siru ci njëkk du ci siin daf caa dëggu daf caa dëggu de waaye nag dañ koy jël ay lax ñu lax ca biir wala afaal ak jëfin ya ah jëfin dëkk dëkku ci ni ñu jëfi bi maanaam mooy matt boo xamante ni mooy mart ba jëfee kaay ba mu jëmi jëf kon nag ñett yi ñeent yii daf ca dëggu moo tax mu jëmmuñu nekk rek ismul asama nag moo gën a màgg ñëpp ndax moo gën a mate yëpp am na dafa dikk mat saatan wa sifatan wa isman wa fi'lan foo déggee fi'lan rek mooy martaba bi mm-hmm. ah si xan dëggiin woo xam ne nam ca dëggoo laa yataaju maa woo la tawil daf ca dëgg-dëgg woo xamante ni soxlawul ñu koy taawil ni mu demee mm-hmm. ndaxte wala imaale fikri jël su jëfandikoo xalaat mm-hmm. nam ca dëggoo daf ca dëgg-dëgg woo xam ne jarul nga koy firi jarul nga ci jëf xalaat bal duroorataan fasaasa waaye nag fasaasu fan bu ñu la waxee ne moom moom moom mooy ahsam bi rek ismul ahsam bi rek soo xamee lan lan moo ko mooy ahsam bi da xam nam taxawee duróol yam ndaxte moom bañ demee ci pays yu xaqaayiq yi ak maana yi ak yi fu ñu fa dem rek moom dafa am óolu ak say bat mm. bañ dikkee ci saatu ak si ak isma féelul mu gën faa duggaat kon am na 4 plus 4 maanaam 4 plus 4 par 4 par 4 mooy lan ñeent ñeent ak ñeent wax dëgg yàlla kii nag képp ko am li kenn rek moo tax moo am 4 ci biir muy kutanti mu di ko amaat ci biti ñu ne ko tajalayte ah kon nag huwa mooy ëwalu huwa mooy aaxiru huwa mooy saa yu boobu mooy baat bi si ëpp fii bi ci ëpp bi mu dikkee fii ci biti lañ firloo kon nag moo tax kon nag jarul nga jëfandikoo sax xalaat fa xaqiqatu xaqiqam moom xaqiqam xaqiqam ba turwa turwa laa wax alxaqiqatu mooy xaqiqa aljaamihatu ba groupé lil xaqaayiq mboolem xaq yi moo leen groupé moo tax ñu ne ko wuruusul xaqaayiq yow yaay xaaral sa xaqiiqa sa ambee lépp na la ko ambee xaaral sa xaqiiqa yi ba mu dikkee mooy aynil mu nekk Mahamadul Faatihi al Qaatimi ndaxte moom moo dikk ubbi li tëju sàng leen càngaay leen doxi leen ndaal waraamati wasiat tasattara fil albas fal kawnu kuloo masaayil albas la asal ku ko wax mooy ka ko njaatigéem rek moo wax moo ko mën a wax li moom jigal njaatigéem rek moo ko mën a wax li sàngoon ak kaat càngaay yépp kon nag loo fi gis càngaayal sama waa ji nga moom la yàlla jëgale may moo nag mu nekk nag loolu la nekk nag xaqiqa ma nag moo boole xaqaayiqi almustaxrakati ñi nga xam nañ labal li annahu huwa li annahu ndax moom ndax moom ndax huwa hoo hoo li annahu ndax hoo huwa mooy huwa huwa mooy kan awal mooy awal huwa mooy kan wal aql mooy aql huwa mooy kan wasaayiru mooy biti huwa mooy kan wal baat mooy waaw waaw kon nag léegi ànd ak ka ka ëwalu ca ëwalu ga xamal ki nga xamante ni mooy xaqatul xaqaayiqi boo ko xamee doo ko topp loolu ëwaloo ëwalu waa léegi kiñ fi aaxiru ana bi demal xam huwa soo xamee kuy huwa xam ne huwa moom moo huuf aaxiru bii ca huwaam moo tax ñu fi ko huwiyatu nëbbookaay bi fu li tax muy wéetu mooy fala wal fala awalul làqu fala àqut làqu fala saay làqu fala baat moo tax ñu ko huwiyeetu ga huwiyeetu moomu nag moo tax benn waaye ko xam nam buur fii fii bam na ko kutinta xàmmeel na ko moom ñun xàmmewuñ ko mu ne moo xam balaa ngeen dem nag man taxuma leen a jóg koo xaaleen tax a jóg soo joxee nag te kala tax a jóg ka muy awalu soo dina mën laa gis awalu de xuwa nga mën a gis xuwa nag mooy kan kaay ma waxal la xuwa neexul deret wa moom maa tàqul laa laa sabi li was li tiib taa yoo demee ci xuwa ca awalu ko mu ne xee awalu mi ngay xut doo si jot ne ko laa laa arakis fa qul laa laa arakis waaw hey waay da koy ñu ko def moo tax ne ko yow yaa ma tax a jóg yow woo ma la yaa ñeme yàlla man nag maa xam yow nga ne demal kaa ñe mu dem naa ah, laaw nga laaw soo ko xam doo xam kuy laaw muy aaditu nga dikk ci beneen xaq fekk waa kuuf Ah, kon nga dikk ni man day àqu na àqu man ah yaa ma gën a xam koy àqu kat itam ah doo ci jot de ah ah doo ci jot de ah huwa laay wudde huwa mu ne xamuloo eh yaa sob fekk xamoon nga xamoon nga huwa fële nga dikk ne ko waaye ah, yow saa waay xàmme naa la yow laa fekkoon fële ah xàmme nga ma booy ni ko yow mun a ci jàllal yow ah, gannaaw xàmme nga ma rek man kay moo tax ñu tuddee ko ko xamul mooy xaarif di xaarif aynil maarif la jëmm ji ñuy xàmme moom ngay xàmme waaye ñoom ñoom awlu aaxaru saay baat mënoo leen xàmme mukk moo tax ñu tuddee ko aynil maarif nga dem régler sa mbir ca aaxaru ba mu jeex nga dëkk na ko merci. voilà baax na ma lay xaaraat. nga dem ka lay avis ne demal seeti saayiru nga dikk fekk fa moom waa ngi taxaw mu ne ah looy wut mu ne ah dañ maa ebal de ci ku ñuy wax saayiru ah fii de maa fi nekk man ak man kay xàmmee naa la xam naa yow bañ maa ebal de xam naa yow la fi fekk mu ne ah waaw léegi tey nga muus de mu bàyyi la jàll def sa liggéey ngénn moo tax lii mooy séyru lii mooy séyru mooy yow ya da nga man bagage bu ñu ya, wax siru siru nak boko bëgg a bagage ya nga dem ci awlu fu koy delloo ama amaat bagage bu ñu dekk ñu ko wax ruuhu soo bëgg a ci kay dem ci aaxar fu koy delloo ci nga am bagage bu wax sayru te borom soxla ko soko bëgg a delloo jox nga dem ci sayru nga am bagage bu ñu wax batti soko bëgg a foko foo ga dem ci batti way nak bu yoy foo jaar bu delloo ko moo tax inna laa ya'murukum an tu'dul amaanaati ilaa ahlihaa waxuñu al amaanata dañ laa dénk ay dénkaane léegi nag soo xamul huwa mii doo xam gaa yooya te soo xamul gaa doo mën a delloo bagage kon nag lee tax ñu ne kon nag ñu ko aynul maarif léegi nag ba gaa yi jeexee nii fi jeex na nga dikkaat mu huwa huwa mii kat alimun bi kulli mooy ki xam lépp lépp moo xam la ca numéro un deux trois quatre cinq te xam nga pays bi bi ñu dikkee ci cinq pays ngëlëmaan la xam nga lu tax yow da daan wut par per par kenn kenn tey nga fekk fi mbooloo moo xam ne xamoo ci kenn ci biir mbooloo ah mooy pays yu naa sot pays yu naa sot gars yi ne ci biir mbooloo mi xam nga lu tax xam bàyyi ñu foor la ne kaay moo xam la gis nga kii lii mooy git ba nga demee ci pays ngërëmaane daf la waxal na nga cay gindeekoo noo cay gindeekoo wa max maa taqul laalaa sabila yoo xam tiibu foqul laalaa rek sa yaa a tax a jox nga araan nga fexe naxante ba jàll ca ëwalu aqil saayir bat nga dikk ci pays naasuur ba nga dikkee foofu ah mbir mi jaxasoo de ndaxte wa ma andaa illaa basharun mislukum man kat nit laa comme yéen. Mhm. mu yéen kon ki ma doon seet fu ma ko gisee bàyyi na xaw kaay fa iyyaaka wal i'raada an kulli sóoratin isaa rumta min sirri wujuud li kaay gis nga boobu gën a ji sirri wujuud bul daje ne foto fo foto yi kenn la ci ah, na fexeel nga abonné ci benn foto fexeel ba abonné waaye bul fo ne keneen xam ko moom de kooku mooy sirul wujud bi sirul wujud boobu nag bi mu dikkee ci wujud bi dafa toll moo wujud daal am ndeeg bàyyi am doomi nijaay am doomi bàjjen yu koy doomi bàjjene am noon yu koy noono am soppe yu koy soppe am ñoo xamante ni da nga dañ ko opposé am ñoo xamante ni dañ taxaw da nga maam pour may ko jàmm yow na xamoo ci kenn waaye nag fii moo tax fii nag tey bii moo soxla fekk wut sëriñ fii git boo xam ne moo lay xàmmeel photo ci biir photo yi ndaxte fa sóoratu ibrahima tabqaat sa kuran photo yi nga fa gis yëpp benn nekkatu awalu aaxiru saari baat tey doo fa gis kenn benn photo bi fi des de te tabqaat sa kuran waxuma ibrahima fa sóoraam ba mm-hmm. tabqaat sa kuran kañ isa abal mawla ali ndaxte mawla ali cooli cooli bu ñuy dellu ñu ngi ñibbaat ci molo molo lii fu nga xamante ne foofu mooy ismu laay ismu laay ba nam ndar keppoon bu njëkkee ci mawlal ali foofu la ñu ndar taa yoo xamante ni man dellu naa ci mawlal ali ah baa fay des nag soora bi nag ah dafa am nañ ko luñ ko këpp xam nga luñ ko këppee mooy basare bii doomu aadama gi ñu ngi këpp mooy hijaabu asam bi nga dégg nañ ko xiiral ba moom lañ ko yére ba kenn ko gis ah soo ko xaw a jege tutu mooy doomu aadama gi moom lañ ne ko kërëf mooy nooru mu talsam kii muy kënsul ahsam kii kenn mënu wax ku ci moom ndaxte nit kenn lu xam mooy kan waxuma nag waxuma nag ah, insaanu kaamil waaye nit nit mu ndaw nii soo dajee moom xamuloo nit ki ba dajeet ndax xar laa dajeet wala bëy laa dajet wala nag laa dajet wala fas laa dajet wala xaj laa dajet wala muus laa dajet wala mbaam laa dajet wala ginaar laa dajet wala cokke laa dajet wala gaynde laa dajet wala nangam nangam nangam ba njeex te lépp mooy kooka nag lépp nekkoon te lépp lépp ga ba joxee nit léppam ga man ca moom léegi nag moom ba mu moom nit mu xam ne benn bi rek la yàlla tànn wa maa xalaqtu jinna wal insa ilaa mu tànn nag insaan yi liggéey xeex yëpp ba dàq ba insaan yi taxaw laqad xalaqnaa insaan fi ahsani summa radadnaahu booba dafa ñàkk fayda yàq insaan gi dellu si ah, bagaase woo yooyu yëdul bàqara fii jinsil kon nag turwaa nag waaji nag dafa dikk nag dëggu fi saati wa sifaati sirqan la yahtaju ma huwa ila tahmili wala imari fikrin bal dororatan ko haqiqatuhu hakkamba holande mani foka xat al haqiqatu al jami lil haqaiq xaq booba mooy xaq moo boole haqaiq ñu ne ko ruusul haqaiq al mustaxraqati xaqaiq yi nga ne dañ labal ñoom ñëpp li ndax moom li tax ma ne dama leen labal dañ la labal ñu xaqaayiq li annahu huwa mooy awalu huwa mooy aaxiru huwa mooy saayiru foofu ba gis nga fii boo wax da nga koy waxaat wa maanaawu bu ma demee ca maanaa man maanaa mooy la xam ne man laa wax ne mooy lii te ma nga foog fi nekkoon dara du am moom xaqiqatu sayidina muhammadin mooy xaq ba xam ne moom lañ sangak naa Muhammad ka sangak naa Muhammad ka kooku mooy maanaam ba sangak naa ba xam nga maanaam mooy loo xam ne sayidu naa bi fi ci siyaadaam gi te tegoo ko bët moom moo moo ma anaaw xaqiqatu sayidna Muhammad sayidna Muhammad xaqiqa ba mooy maanaabu turwa alfaati alxaatimi mooy jëfkat ba xam nga faati mooy ubbikat xaati mooy tëjkat moom kon mooy jëfkat ba ay lu ma ci jublu soo ko xamut ma gën la ko digal yow ma ca kaw alxaqiqatu almuhammadiyatu xanaa war ngaa yi war ngaa yeewu tuuti gannaaw suy xaqiqatu Seydina Muhammad na mënoo ko xam waroon ngaa mën ngaa xam xaqiqatu Muhammadiya moom xam ko nit la xàq Seydina Muhammad kat moom ngay janoon waaye xàqatu Muhammad ya ma soo ko gis te xàqatu Muhammad ya moom nga njëkk a xam moom nga xam ba tey xàqatu Seydina Muhammad nag moom noo ngi xam may kat a réer seetal alati bi yaa xamante ni xujibat dañ koo yiir al anbiyaaw waxuma xàqatu Muhammad ya xàqatu Muhammad ya taxul ñu wax waaye Seydina Muhammad ba dañ koo yiir al anbiyaawu wal mursalina wal malaayikatu ñoom ñëpp teguñ ko bët moom xàq Seydina Muhammad daate moom la kon nag continuité fi hadrat xàq laysa al muxtar yudu laa intun wala malik laakin tajalayta lil akwaan is ajmaa is anta anta man yow mi ñaanal la huwa huwa huwa anta waaye man du ma la xuwa anta anta rek laa yow kon nag mooy koo xam ne ko yiir anbiyaaw yooyu wal ma tënoon ràkk an xam kuy kunu saat saatu kunuwam ba xamuñ ko moom dañ koo yiir dañ koo yiir ba kenn xamul kuy kunu saat kunu saat xaw ma ko de man minaay suma hiya hiya xam nga kunu saat buñ la waxoon ne mooy nangam sax waaye nag bu ñu leen luy kurusaat maanaam nan la nekkee hiya ci yàq ci nga fii hiya xamu fi huwa ak huwa ndaxte woo moom mi ngi nekk mu ngi koy koy kii góoral bi hiya ci ci kaa xam ne moom moom mooy tëjali ba xamuloo mi ngay si hiya ci hiya ka ilayi a ilayi siroo foofu lii am naa waxtul ca la wax ne mu ne ah gars man de am naa waxtu maa laay laa yesu uni du am espace fii malakul malaak malaak am naa maag laawu audience boo xam ne benn espace bu malaaka mën a toog man faa gis xamul fa ba faa toog maag laawu rek a fay nekk ci boobu ci xàq Seydina Muhammad boobu moo wax wax jii waaye du xàq ba nga xam ci maa xëy nga xàq xëy nga xam fële ci kaw <laughs> dégg nga xàq ba nga xam fële ci moom du booba rek xàq Seydina Muhammad bii ca la waxee wax ci moo tax <laughs> waaye xam nga ne xàq ba li ci kaw ci xàqatu aadi ak Muhammad yi boobu waxewul foofu de waaye xàqatu Seydina Muhammad bii moom mu ne maag sama diggante ak laahu daal am na iir boo xamante ni malaaka du am yaatare fuñ ko fa yaatal pour mën ko fekk fii malakul mhm. ah ah yow wala nabi mursal nabi mursal sax amul fa place mhm. du malaaka du nabi mhm. waaw kooku fan la digg digg yàlla kooku de kenn ko kenn te kii nii li xamal ne kenn ko xam kenn ci wax mas ngaa dégg ko wax ci waxam ba mu taxaw ci maqam maqam xaqat Seydina Muhammad ko ko wax ci moom ku dut benn waay mm-hmm. ah moom dong moo toog na ko rak kutimta ne ko tajalayte mm-hmm. fan nga tëjalee ak fan nga ko ci men xay ci hiya hiya mm-hmm. sa hiya ca ca xaqiqa ba ca sa xaqiqa ba sa ba ci sa biir xaqiqa ba man foofu la ndaxte moom xaqiqa la dikk ci xaqiqa xaqiqa mais mooy xaqatu in xaqiqa ba xaqatu sayidna Muhammad bi kon nag ca foofa la dikkee foofa nag la war a wax ah benn wax wax na ko ak lan wa hadisun ak hadis ana man ana mii man ana xam nga maa ngi wax ne ini ana ini mooy jiw ana mooy jiw ini nag moy présenté ana ini mooy anak, ana ana nag mooy présenté boppam ana man ana sayyidu waladi Adam, may sangat waladu adam dom adam yep yi génn ci Adam, may sen sayyidu wala faqra te titre wu ma ko waxoon na du ma maa waroon titre waaye titre ndax lu tax man siyaada bi siyaada bi xubóoti ci moom ko gën man lañ jox ràngal siyaada bi waaye man xubóoti bi moom moo tànn moo tax ñu dem nag xubóoti xam di saati xëy na siyaadati tasawada fii mag noonu naa kulu seydi ron fañ ko denc ku bëgg a nekk saydu da ngay da nekk njaam ca bit ron njaamam ko da nekk njaam ca ron nga doo ko jot siyaada waaye da bëgg a jot siyaat bi te du duggoo ci rek siyaat fu eh, bënd waaye da ngay wax rek mënoo kat kon nag man maa nekk eh, Seydou wala ak loolu nag kon léegi fan la ko waxee waxee ko ci waxee ko ci fële wax ko Seydou lu jot Seydina Muhammad bi ko waxee ah <laughs> ah waxee ko ci Seydou lu jot fii ci Seydina Muhammad xàqat Seydina Muhammad bi ci la taxay wax wax wax ci maa ndax lii mas na ko dégg ci kaw suuf waay laa ilaha illa allah sey ba ñun xawma lii koo xam boo ñàkkee jom war a nga ñàkk fayda dañoo war a jël paaka dagg sa baat bi ndax bu yàq àdduna bi ndax da fii ku fi nekk soo kàccooree ah doo doo da ngay indi musu ah wakkile la ko matees na ko moom sallallahu alayhi wa sallam saa benn bés am nañu ko ayo anta sayidun yax ndax yaay yaay sayidu faqaala mu ne a sayidu sayidu allahu mooy laaw seetal ndaxte sayidu mooy laaw laaw mooy sayidu waxu ne man la de ndaxte laaw te laaw dawul moo ne moo ne sa rasul faqad ata kon kay moom itam lu pare bokk moo tax kenn du toog ne man mii maay laaw waaye laaw Seydou kay laaw rek ko ma Seydou kon wax nga ne laaw Seydou mooy laaw laaw mooy Seydou bañ na ko yeesaa yaay sir ma ne déedéet a Seydou Allah moo tax utugoon foofu mu sax kon nag waa jàngo ku bëgg a xam na xam nag Seydou bi ak lan wa aaytum wa rafa'naa laka zikrak yow maa jël sàngee la sa sikkar ba yow maa la yëkkati sa sikkar ba xam nga gaa ñu ne maa la dendale ci mbooy nodd ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah waaye kon dañ ko wax maa dendale waaye sikkaram bi moo féetee kaw ba boo doon tudd man laa tudd sikkaram bi ngay tudd téeguloo ko ah kon nag loolu mooy référent lakk si kirak ndaxte ruuxu am na turwaay boo ko bëggoon wax turwaay waxuwaay ah wala Demba wala Ba ah kon nag turwaay la laa def mooy jaar waay mooy jaaree kaay pour mën maa oo gis nga nga gisee sa tur wi mooy sa jaaroo kaay pour nga mën a oo laaw soo ko bëgg a oo ngay jaare pour oo laaw turwaay ci ngay jaar pour yu oo na nga jëlee baaba boo boo soxlaa di rek baaba gi da nga daan baaba baaba nangam da jaar ca baaba a trop wa ayat wa maa arsalnaaka yabaluñ la illaa rahmatan lu may pour yërmaan lil alamina xam nga irsal boobu la mooy waam ngim waamal xamam gi ci kaw xam-xam loolu du kaay demal ma kaay nekkal ma ca nekk yi moo tax dangay boo déggee ci kase de mooy wujjóot bi ak mawjóot bi ak mawjóotaat yi ku xam ki ko ak kuñ xamal ki ak way xam yi kon nag ku xam ki moom lañ bëbal amam bi ci am am yi ah xam nga ne ba ruuxut dikkee su dikk doon may yëfam gi ci yaram yaram du mën a law yaram yi kon nag loolu moo lay xamal nag sa nekk bi rek xam nga ñun bu ñu nekk bu ñu jàngoon jàngoon suñu nekk gi ci nekki gi rek mm. xam lépp gi waaye ñun dañoo jël suñu nekk man arafa na soo arafa boo xamal sa su ñu taxawee rek xam ñu boobu yo taxawee na mayam nga taxawee ak nañ koy mayee mm-hmm. su ma nee roofu war a fare lakk ko mm-hmm. nu ma ko nu ma uyu mm-hmm. waaye su ma nee kon nag baaba gi laa jël tey ci a fa naa wa maa arsalnaaka wa ayatin ak ayat wa rahmati sama rahma bi man wasi at moo daj kapp kapp kapp kulla sëy lépp loo xamante ni mooy sëy uba ah booba nag yépp ci pays bal loolu yëpp mooy maanawiyaat bi wax yërmandeer yooyu yëpp yërmandeer yërmandeer ma ko ko tëgg xam nga ñu yaa ngi koy xool nii waaye xam nga lii mooy yërmande moom nag jëmmi yërmande ji nag moom wa rahmati wasi'at kulla shay ah aywa <laughs> yow yaa doon dégg de sama yërmande gi àgg na fépp loolu nag kon indil naa la ah xaqiqa ba indil naa maanaa ba indil naa la waxoon na tur dafa am xaqiqa xam maanaa maanaa bi nag mooy yooyu nga xamante nii raxma baa yooyu yàq yooyu yëpp ñu ngi wa sóoratoo photom ba bañ ma nga xamante ni buñ doon photo ah, moom kaamilul xas aadama xam nga moo taxawoon de kaamilul xas ku taxaw de jëmi xilaafa mooy xilaafatul osman yaay aadama ah ki ñu doon xool nii xam nga mooy aadama léegi aadama moo taxaw nii doon dama nuyu ah daf ñuy joxoñ kon nag ah <laughs> kaamilu boo déggee al daa im moom da aadama ga sees la boo xam ne du fa jox boo xamante ni mooy sóora bi nga xam ne mooy sóora bi nga sóora boobu nag fa sóoratu Ibrahima tabqa tasakkuran waxuñ Ibrahima nag booba Ibrahima nag santut Haydara santut Taal santut Faal santut Ñas Ibrahima booba santut benn sant amul ndeeg baay amul askan amul xeet amul dëkk amul fenn foo ko mën a laaj kon nag kooku may xaamul xaj wa ili ci loolu moom ca sóora ba yusiru la ci xadiisul xadiis inna laaha laaha xalaqa netaalooxeena aadama aadamiyatu haala soorati ca na meleexe moom na meleexe moom la melaleexe adam ba moo tax fii nga diggee nag kuntu kansan laf fa ahbabtu an uraf fa xalaqtu xalqan kay baraf kon na fa biya kon na gis netaal bii mooy netaalu aadama bi nga xamante ni mooy netaal bi nga xam ne bi jox netaal boobule moom lañ jël na sàngee ko ba bi netaal boobu lu ñu teg ba mukk kon nag man ngaa gis ba waaye netaal ak nit ci doo ko gis mukk te pourtant nag nite nite ni ko saalum saalum tuddee turu làqu la nite mooy nit nit mooy be be mooy ñaari fukk ñaari fukk moo ñeenti juróom kon nag nga am juróomi ci sa loxo ndeyjoor am juróom ci sa loxo càmmoñ am juróom ci sa tànk càmm ndeyjoor am juróom muy nit kooka nag netaalum fii la mooy netaalu nit moo tax baat dafa am baat yoo xam ne baat xale yoo xam ne kenn nëbboo pour mun wax li ñu wax xam lan mooy eh, xayaatur moom suñ kulaa wa isaara mën nañoo xam lan isaara loolu mooy nit te saalum saalum fukk ni nga tubaab di wax vingt ñaar fukk ñaari xam nga ñaar fukk lañ ko tuddee ñaari fukk na ko saalum saalum tuddee mooy nit nite mooy ñeenti juróom mooy nit nit mooy fukk fukk mooy nit loolu nag baatam saalum saalum boo demee dafa am yoo xam ne ñu ko dem ci saalum saalum mën a ko faa déggee moom kon <laughs> nag loolu la inna laa xalaqa aadama ala la xenoona amaana ba xam nga amaana ba mën ngaa gis ni fii dëgg-dëgg mooy salaam ba jàngal nañ ne salaatu mooy ijaat salaam mooy garante ba ndaxte salaam boo amee salaam mooy may nañ la nga am oto tey salaam nag mooy def nga nga def assurance kon nit nit ak nit rek moo la mën a assurance bu doo soo sànnee seen i cëng rek assurance bi dafa yàqu toxal yàmbaa assurance ba yàqu moo tax ba ba ni ngi fi ne su ñu la defalee assurance nga dem eh, tux yàmbaa boo accidenté kenn du la fay assurance du la fay soo naanee eh, sàngara ba accident yaa yàq sa nit gi niñ bañee nitee waa saay niñ bañ waa baat noonu lañu bañ ñoom itam nite nii nii mooy amaana bi mooy ah, mooy mooy assuré ah, assuré bi assurance mooy nite assurance ba nag ka nga xam ne muy amaana ba mooy insaanu kaamil lu tax ñu ne ko insaanu kaamil dafa mat moom xaqiqatan wa maanan wa sooratan wa isman wa filan loolu tax nag ñu ne ko nag acca yow yaa mën a xeenu amaana bi ndax sa xaqaayiqi mën a xoon lii xaqiqa moom tax xaqiqa dëggu rek la man yow nag yaa di ko jël xaqiqa la mënoon jël na melo manoon jël la tur manoon jël la martab manoon nga xeera ko kon nag yaay nit ki lii mooy nit ki kon nag nit a ngi nii ah ak lañ amoon seeni bagaas nga jël ko ndaati xàq ba amoon na ñeent maanaa ba am na ñeent sóora ba xam na ñeent ah li nga xamante ne nag eh, eh, mooy ñu ne feelu bi mooy jëmi matériel dafa dikk jël nag mu am ñeent ñoom nag seen juróom ñeent yooyu kenn ku daan na juróom juróom yom mu dikk taxaw ne jëmi mooy ba nga xamante ni mu ne kon nag nañ ko bi nga xamante ni mooy sóora ala sóoratihi xam nga demir boobu buñ ko léegi laahu bind na aadama ala sóoratihi ca nen mel moom laahu waaye xanaa xanaa kenn doo xam ne bind naa aadama ca ne aadama mel ah <laughs> moo tax digg arab sax amagul fii nan laa ko melalee melalee la mellale aadama yëpp aadama yëpp nag gisuñ ko mooy nite nite nag moom lañ jël basare mooy kiiraay bi ñu wax doomu aadama mooy kër fël lañ ko ci koom te kii la ñëpp bëgg xam mm. ñu tudda ko kantul mazone mm. wala sirul maknoon ak demee tur yooyu yëpp ak kantul asam yëpp léeboo lippoon la waaye doo tax ngeen ko gis de trop moom firi firi firi firi firi doo teg bët rek ah moo na xamalaa al insaan kaana zaluuman jahuulan insaan moo xenu eh, assurance ma mm-hmm. insaan moo ne man de mën naa nekk assurance boo xam ku ma mel rek assuré sa assurance assurance dana dana dana walaabal mooy nit ñu ne ah nit nit daal moo nekk na sa loo man jàpp wala ku mën a tooñ nit ñi de waajur yi de mu mel na xastale te aw tagg la ndax ci ñaar ay firi firi la mm-hmm. ma firi ci li ma ci mën a xam ci firi soo sa loo ku mën a tooñ la ndax fi nit rek moo mën a dikk ci bàyyi ko ci xalqoom bi dikk ci xàqoom bi xàqoo xaq bi ne man la kon bàyyi nga sa kër dikk ci këru jàmbur da ci saay ci waxit boobu rek kon tooñ la jafoo leen waaw yow kii kan la maxtaar mu ne ah tey ah kii nag kan la xanaa moom moom man xanaa moom moom boo fexe waxtaan yàq de moom moom rek huwaa bi nekk rek moom ci moom nga rek hiya hiya <laughs> moo tax benn waay ba ñi nga ci kat boo demee ñu laaj yaay kan nga ne huwa foo bàyyi koo nga ne huwa foo jëm mu ne huwa lu la tax a mu ne huwa kuy sa ndey huwa koy sa bàyyi huwa huwa rek fi nekk huwa ndax huwa mooy bàq yi huwa googu rek fa nga war a gis moo tax nit ñi fi ñu mën a bàqaaw boo ne man maxtaar rek yàq nga liggéey boo ne man yàlla rek yàq nga liggéey ndaxte man ak la ñaar man ak jiw huwa rek ma fi nekk te huwa kullu sin xaala kun ilaa foofu rek ma fi nekk te waa insaan moo tax di jënd insaan ma maqaama insaan bi mooy maqaama hu wiyéetu inna wa kaana sa la woon jawlu kon nag jëfoon ah réer la amatul moom kuy jóg mu ne huwa ah xamuloo sax ne kii may maxtar xamuloo ne kii may kii yow mooy man huwa laa xam huwa rek huwa rek kon nag jagoon ne ba tey innahu kaana zalooman jaxoolan ismu faahil la waaye tut ismu faahil ma fool la sa kii dañ tooñ mu def te ka def te ki def kii nga ne ko déw yaa ma tooñ kon kii bu la dóoree ndax kii mën naa dóore nga dikkee nag jël dóor yi ne ko yow yaa ma dóor waaye yow ki la dóor man mu ne yaa ma dóor daal di doon bëgg tooñ ko ko de kii mooy masloon kon masloon nekk kuñ tooñ ngi nii mm-hmm. jaboo la nañ ko réere ndax xamuñ kii mooy kan mm-hmm. kii nii soo ko xamoon doo ko dóor kon kii benn prix kii kuñ tooña ngi nii kuñ réer ngi nii mm-hmm. waaye kaw xamante ne xam nga kii mooy kan mm-hmm. sa loxo du jóg ci moom de mm-hmm. moom insaan nii insaan koo xam ne rek xam ne insaan du ko day fonk insaan koo dégg mu fonkat insaan ah gis la di sax yéefir sax droit de droit de homme lañ ko tuddee droit de l'homme <laughs> ndax xamul kuy on soo xamoon l'homme da xam nag l'homme <laughs> <laughs> xam nga l'homme mooy koo xam ne mbiram dafa luum mbir moo xam dafa dafa mbiram dafa luus baara kenn xamul muy kii ah ko kenn xamul ko man ko ko jox res jox res kon indil naa la xaqiqa ba indil naa la maanaama indil naa la soro ba diggante raxmat yooyu yëpp ngay dégg ca maanaamam la ba nga déggee ca photo ya benn photom la benn kilise moo génne kilise yépp wala soo faatihatul kitaab moo ubbi téere ba ayil kutubi wala téere yi téere yi nga dégg ña téere asamaan te ba na téere téere nanga kii dong mooy faatiha bi moo tax nag allahumma inna nasaluka faatihatul faatiha ndaxte eh, xaraf yi joxoñ xaraf yi joxoñ Euh, matière ya mm-hmm. xaraf yi moom lañ xol xamé xaraf ya oh. xam nga baat biñ bind ci faatihatul kitab mm-hmm. di ko tuddee turwa mm-hmm. du turwa waaye nag moo junj turwa turwa nag pour nga man ko jang xara ay xaraf ko jàngee itam xaraf yoy nga ko jàngee xarafi jëmmal lay doon waye doon xarafi wax xarafi jëmbat mooy lan xarafi jëf mooy lan al abdu ngay dikk taxaw doon ko jëf ko waaye doo dikk ne maay de foofu amul maay ak nañ def sant euh, ge yooyu déedéet foofu moo tax kenn ba ma ba may suroo jàngaguñ ko ndax jàngul moom balaa nga ko mën a jàng dangaa dëggu nem xàqiqa moom xam ci xàqiqa ba da ngay dem jàng ko foofu mooy def tilaawa nga dëggoo ca nam dëggoo ca àq nga dem ca maanaa nga maana woo na maanaa xeexee mooy yërmande nga dégg fi nga xamante ni mooy sóora ba nam meloxoo doo teqe koo nam nam kippeekoo na aadama yi di kippeekoo ca aadama mooy foto bi nga xam ne mooy foto kilise bi ba mu dikkee kilise gi yow rek moom foto bi gën ci biti kon sa melo yooyu ak mën a mën a kër kon melo ci melo nga koy coppi nga koy kii ah bam dikkee ci xaraf nam xamee mataay juróom na ngay amee mataay juróom wala ñeenti bopp ñeenti xaraf ngay dikk mën a mën a taxawee ñeenti xaraf yi wàcc caw ah nga taxaw nag di jëmmi moo ki nga xamante ni moom moo def noona su bëgg a def te ku bëgg def nag nan bëggee jàng tuba déglul na kooka defee nga defee noonu mooy wan benn waay mu ne waxal ab saral ay naaka un laa may sëdd mi abdi ndax sa ñaari bët yi mas naa gis waajoo xam ne ah laa may sëdd moo gën a neex dund min al abdi ci al abdu bi ñu ne abdu mooy kat mu ne huwa alhamdulilahi kulluhu alhamdulilahi kulluhu mooy alhamdulilahi kulluhu kon nag lii kat al abdu bi sóora la ci turwa ah xaraf la ci turwa jëmm la ca turwa kon nag boo di ko defee lii di ko jàng pour moo tax ne képp koo xam ne amuloo ñeenti critère soo ko remplir bëgg a jàng tur yi woo baaloo dara amal fa am da nga amal maqaasidu siru maqsadi xaarifu ko moom ah? Eh, maa kullu ma sóobin bi saakal arif ba ne dara amul taw nga nekk arif ñu ne ko bàyyi kon waxal ñu kooku mooy kan bal man baqaa yow kenn nga de yow kenn nga am baqaa kañ baadal fanaa'i wa salaka rahjar toolil aq war naf ma rak nga moom ñeent yi yow kenn ak ñeenti ñaar lu juróom lii nag boo ko defee kon tolloo nga ak moom xaasaa kii arajul maanaam kii mooy jaam bi asa unta moo xam jigéen ji takku sën la wala góor guy toog takku tubay waa jàng moom woo sirlul xëy taa jële s suñ secret bi mooy tur yi nga xamante ne moom la gaa yi jëlee naan maxtadu nanga maxtadu nanga taa yoo ko jëlee koo xam ne takkaayu wa baalu wa dara xay wu nga ko jox kon nag wa sartu fil asraari taqwa laay sart ci secret yi maqsad yi taqwa laay da nga am maqaama taqwa laay taqwa laay foo ko diggee rek mooy koo xam ne na turoo bëggee ci biir ak na turoo ci biti yaa ngi ko taxawee intisaalu awaamir wattinaa bu nawee nga nekk jëfandikoo sa cëri biti yi juróom ca na taxawee nga jël sa turi ji baat si juróom ca na taxawee ci biir nga taxawee noonu rek li nekk jëm mooy rajul bi kii mooy rajul unsa aw saqam boo ko defut woo baal wa dara wa sartu fil atrak taqwaali fa inna bil muttaqin man Ibrahima Niass ñi may tiitaroo ci taalibe bi yépp mooy muttaqi kon nag loolu laa la bëgg a ne loolu lay nekk wala soo faatir kitaab awil kutubi tey fu ñu noddee wàcc naa ah, dégg kon fa yemam kulliyatu saatil ismi dégg ma wax de dégg nga saatoog ismu ba xam nga da ngay digal faculté mooy faculté bañ dajale tur wa fañ groupe bi tur wa mooy tur wa boobaa nekk ay xaraf moom kooka mooy lépp jëmmi tur war asmaaw tur yëpp aj saawun ay xaaji laa ñe ko mboolem turoo gis mm-hmm. sànq gën a tuuti mm-hmm. ak ñee ndobi nag loo xamut loo gën a rëy mm-hmm. ñoom ñëpp tur yëpp ñu guddee ci wen tur ndaxte kenn ku ci naw moo law teew la tax ñu tuddee turoo moo law turoo ci ci tur yi lii nag soo ko xamee dootoo jaawat léegi dootoo xeebee suuf dootoo nawati ko warul naw mm-hmm. da nga xamante ni kon nag borom yëfi moo mayee fii nii mm-hmm. kii may ko listé saatu ismi mm-hmm. wala ay saaw arsoxan xam moom nag trop tajarat moo tëjee léegi fu mu ko tëjalee mooy ahmadiyya bi bañ waxoon fële tajarat alam na lisa abadan amadiyata aadiyata bil amade bil waay diiti maa ngi lay génne foofa boo boo bu bu ko sakkal xalaat foofa ndaxte koo xam nga ne mooy bëgg-bëgg yàlla bi mu dikkee ca fële kaw ak bi mu dikkee ci tëjëli bii bii ba mu dikkee ca fële ak bi mu dikkee ci fii te tur wa moom doo mooy tur ba nga dara ci fii amadal ahamadiyata bil aadiyata wal waahidati bil muhammadiyati moom moo commencé woon foofa moo di tuddee doxam fii ci doxin bi kon nag tajal fil wa tajal fil haqqati fa saarat sayyiduna muhammadin ba mu dikkee fii ci haqiqa bii haqqatu muhammadiya moo nekk sayyiduna muhammadin sang ak ak muhammad ga moo tax ni ma ko firi ku ko firiwut sang ak muhammad ga moom la tudd fii mm-hmm. moo tax fii ci biti mm-hmm. mooy sayiduna wala fële mooy sayiduna wujur bi mm-hmm. ah ba muy def fële ca tëjee bi ñu génne woon ca ismu ba foofa la nekk ko sayiduna wujur bi ndax xam di foofa laa borom génne ci fii nag mu tudd fi sayiduna Muhammad maanaan mooy maanaa kulliyati maanaa kulliyati saatul ismi moom ko nag lépp lu mu tekki mooy sëyid ak naaka sang ak naaka ndaxte naagi ñéppañ ca biir naaka ka nga xam ne moo dikk ëmb naaga di leen liggéeyal ñoom ca biir yëpp mooy seen sang moo tax ñu ne ko kuliyatu saatul ismi mooy lépp jëmmi turuwa wal anbiyaawu ajsaun lahaa ña ñuy tuddee al anbiyaaw ay pàcc lañ ci moom ñu génn di anbiyaaw anbiyaaw anbiyaaw mooy xaayif anbiyaa daal di génn ah? su ko defee anbiyaa yu commencé nag génn def seen kenn ko def si awul sa aqru awul ci nabi aqru ci sa rasool daal di génn commencé sax say saal moo tax kenn mën gis ki nga xam ne moo la génn ka la génn si nañu réeree ñun aadama ñu génnee na la india yu réeree ñoom itam mu yaakaar ne mooy seen aadamam mu ni acaaw laxam kon nag wata jarat mu ne tëll a génn fi kaamil xasri kaamil xasri fa saara siddiqu ah fa saara akbaru siddiqin siddiqin yépp ka ca gën a ngande mooy waa ji sooratan mooy soro boo xam ne kuliyatu saatu ismi mooy photo booba mooy lépp ak jëmm ak lépp lépp ak jëmmi jëmm jëmmi tuwa moom mooy sóora boobu sóora boobu nag mooy sóora bi fay des tabxaat sa pro waaye saa nu nga xam sóori mooy sóora boobu falan saa bay na wala am yëtt saaro boobaa nag sóora mooy yor liggéey ndax ci ñoom ñoom ba ñuy tëjëri ba ci sóora boobu ñoom jeexal nañ liggéey foofu lañ doon jox verse de mel na ko def verse ka sa liggéey bi léegi bañ ko verse sóora bi mhm. sóora moo yor nag liggéey bi léegi mhm. kon nag mooy kulliyatu saati ismi wal awliyaawu mhm. ñoom itam ay awliyaaya ay saawun ay xaaj la laañal ko boo fi aasa fii nag buñ dikkee fii bàyyi ko ci Seydina Muhammad dëkk ci akbaru siddiqin mooy siddiqul akbar mm-hmm. yëf xam la déggee mm-hmm. al abd ci la ñuy déggee al abd mm-hmm. fi ngay déggee al abd fii nga koy déggee wayu yàlla ñi nga xam ne dañu xam ne moom mii alkaafi boo déggee kaafi ci nga xam ne kii mooy kaafi fekkat bi fii mooy al abdu wal abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu al istu bi doon wa innahu lama qaama abdullahi moo tax fii moom boo demee ci fële atti bu mu feeñ rek moo tudd habbu foofu ndaxte kenn du feeñee lu may hubóot yàpp abdoo bi ngay feeñee ku dikk rek maqaama abdu ngay taxaw fii ci pays moo xam ci risaal nu bootan ci risaalatan ci wilaayatan xilaafatan kon nag mooy abdu mooy kàlbate mm-hmm. ah wowwa mm-hmm. te mooy huwa da moomu de mm-hmm. moom ko de awalu moom moo di de aaxiru awalu njëkk gi doo xam ne moo fi njëkk de soo ne moo fi njëkk ñu ne ko ci tegee <laughs> wala aaxiru muy mujj gi soo ne ku ci géew yu mujj ñu ne ko ko jiitu woon te amul ko fi jiitu woosaay dox na mooy mooy feeñ de mm-hmm. ndax dañoo ne kon fu mu ne boon moo laata feeñat mm-hmm. kon mooy kan mooy biti mm-hmm. wal baat moo wax moo nëbbu de ñu ne kon anamu da nga xam ne mooy biir boo doon làmb biir dafa daj lu mooy biir bàttin boo déggee bàttin bàttin amul koy ci bàttin mooy moom doon ngay def ci bàtt biir moom yëpp kon nag waaw kon fi nekk wuyu fa mu seen ñu dëkkee sóor fi baa yi wa nuqtati wa soklati xam nga baat boo bindee alif ne baat ne tomb ne mask fii nag moo tax foto baaba ak tomb ak baaba ak mask ak baaba ndaxte boo ne bii tudd nga ñoom ñëpp moo tax mask ba mu fi kenn mënta jàng moo tax maskal li muy nit ni nga ko compté ko ci xaraf yi de waaye nag moo gën a foor xaraf yi ndaxte moo jàngale xaraf yi ah. moo tax euh, sóora bi nga xamante ni mooy in sóora ci insaan bi boole woon ko ci groupe bi de waaye xëy bu fi di ko doon groupe bi kenn du leen xam ah ndaxte na ngay boo bëggoon jàng alif fa koy jàng ndax a la wala i la wala uu la wala un la wala an la wala il la wala ëh la ndaxte xaraf boo gis xam na juróom-ñeenti juróom-ñeenti masque benn xaraf bu nekk masque suuf masque ak kaw ñu a suuf ñu ne i kaw ñu ne a ah wala ñu an wala dégg an wala in wala un um. ah su ko defee nga dem nga ne xam ko def nga boo ne an def nga ñaar ne in ne un um. nga dikk ne ë e. hmm? ah, i u su ko defee nga bàyyi foofu nga ne nga xaccaat ne a ah, i u kon ñaar te du ko indilu juróom-ñeent seetal A I O ñett an in un muy ni ñett nga dem ne ko a indi xacaanam ca kaw i indi xacaan u indi xacaan ñaat la juróom-ñeent ah mooy sukkoon moo tax kon xaraf boo gis ci xaraf yépp xam na fukki masque kon ndeke yow yaay kenn tey fukk kon yaay xaraf xarafa ngi nii xarafa ngi nii moo tax fii ku bëgg a dem xelmul xuróof te xamee fi nga xam fi la xelmul xuróof ay génne ji da xam maska ya nag ak lu tax ñu dikkee leen maska ah gis nga bëgg ba nga bëgg ca ba nga ca bëgg a may keneen nga indi xaccaar mooy ba nga ne ah ne ii indi ko kon yaa mu ànd ak moom ndax mën a dem nga ne uu nga indi waaw mu mën a dem nga ne aa mu ànd ko nag fa nga indi par déedé yi fii nga diggee heure déedé ak masque par déedé bàyyi nag nga ne ko nag eh, lii ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.